di ci dajale boroom xam-xam yi àdduna bi yépp ngir weccoog ñoom loolu nag bu ñu ko dee def dañu xam ne ni mu ko waxee léegi Sëriñ Tuubaa dafa liggéey lu yaatu ci xam-xam incarné ay valeur yu am sol yoo xam ne àdduna bi soxla na ko tey kon lu mel ne màggal nga xam ne événement phare la média yépp di ko bàyyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew jaadu nañu profité ci wanewaale njàngaleem Serigne Touba ci question yu bare bare bare yoo xam ne soxal na àdduna li nga xam ne moo nekk ci kàggug sëriñ bi ñu partagé ko ak àdduna bi ndax kenn ku nekk la nga yor ci lu baax war nga ko wane

fi ne nii cercle de réflexion yépp ñu ngi xalaat ci conséquence pandémie bi mooy jàngoro ji fi tasaaroo ci àdduna bi jeexit yi nar a am ñépp ñi ngi def ay recherche di gëstu di waxtaan di xool naka la ñuy mën a def ba jàmmaarloog jeexee bi léegi waxatuñ sax jàmmaarloog mbas mi waaye jeexit yi mu fi nar a bàyyi loolu nag ñu gis ne am na valeur yu am solo yu nekk ci lislaam Sëriñ Tuubaa am lu mu jàngale ci wàllu xitma ñu gis ci biir Sénégal loolu niñ ko jariñoo ak njariñ li mu am nga xam ne ñeneen ñi mën nañ ko tuddee engagement communautaire wala nuñ ko mën a tuddee waaye ci yoonu murid di xitma bi Sëriñ Tuubaa jàngale gis nañ niñ ko jëfandikoo ngir wayafal yi nit ñi ci biir mbas mi loolu nag exemple yu bari am na ci Sénégal yoo xam ne adduna bi war nañ koo xam kon buñ ñu tànnee thème bi nga xam ne wax na ko muy la xidma et les œuvres de bienfaisance comme mécanisme spirituel pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus loolu mooy war nañoo xool kon valeur yi lislaam indi rawatina li ci Sëriñ Tuubaa jàngale nun ñu mën a def ba jëfandikoo ko ba delluwaat ci ba jeexit yi nar am ci àdduna bi inégalité bi mu nar a jur jafe-jafe yi mu nar a jur ñu man koo wayefal man koo wàññi kon loolu mooy mbirum kolo bi ren nag ni mu ko waxee xam ngeen ni dañoo toll ci contexte boo xam ne contexte bu bàyyi xel la sëriñ bi bi mbas mi tàmbulee gis nañ taxawaay bi mu ci am jiitu ñëpp ci joxe ay exemple ci nuñ koy xeexe waaye nu ñuy fexe ba fagaru ba moytu ko kon ca logique boobu ci la joxe ndigal ci màggal gi ñu màggal ko waaye ñu sàmmonte ceeg lépp luy tax jàngoro ju law loolu nag moo tax comité d'organisation bi jël en compte loolu ba kolog bi mu doon def par ñetti at mu waroon am ren ñu ci daan woo ay nit ñu jóge ci réew yu bari ñu nekkoon dañ koy def format visioconférence ñañ waroon woo ñu ñëw léegi seeni réew la ñuy toog intervenir fii ci Sénégal ñi ci war a bokk ñoom it intervenir kon loolu mooy format ren bi ñoom maîtriser nañ gestion continue bi ci wàllu visioconférence maîtriser nañ ko waaye nag dafa am leen lu ci dolliku ñoom dañoo am réseau boo xam ne mën nañu 39000 mi ngi ci seen réseau ci ay étudiants ak i chercheurs ay universitaires ca koy yëngatu ci xam-xam jàpp naa ne soxla nga réseau bu mel noonu ngir jàllale fa jàngaleen Serigne Touba. bañ gën cee intéressé wu bañ koo mën a intéressé ci seen i thèse de recherche ak yu demee noonu kon IVS li ñu lëkkale dafa bari te ku nekkoon ak scientifique xam ne yàgg naa lëkkaloo ak université moo tax loolu kon option boobu ñu bari dama koy leeralaale ndax am na ñu bari laaj lu tax ñu dem IVS ca ñun fii am nañ technologie bi ak nangam ak nangam fekkte dafa am ay objectif stratégique yu ñu am pour loolu nekkul ne dañu dañu dañu amul technique bi wala lu demee noonu waaye ñoom am nañ ci expérience am nañ lu bari lu ñuy lu ñuy apporter ca loolu bu ngeen visité portail bi nga xam ne ñoom def nañ ko defal ko colloque bi ci seen site IVS xam naa da ngeen gis lien yi danañ ko tasaare da nga xam ne ñoom jox nañ ko gëdd jox nañ ko fulla jox nañ ko jox nañ ko yitte wàllu organisation nag xam ngeen ne colloque bi li ci ëpp technique la moo tax amul présentiel ni mu daan amee ñu woo dajale nit ci benn place donte dana am benn palaato bu yam boo xam ne kilifa yi nekk Touba war a ubbi koloog euh, bi war koo tëjaat danañ daje fii mais dañ fi dajale mbooloo dañuy installé fii rek benn plateau boo xam ne dinañ ko jël xam naa signal bi loolu ci wàllu technique bi ñoom danañ ko danañ ci waxtaan xëy na Pape Sène wala wala yes nu ñuy def ba jox leen signal bi wala Amadou Gueye Ndiaye kenn ku nekk mën koo diviser nu la neexee ca doo ci sonn doo déplacé wu loolu naa ne innovation bu rëy la ci wàllu màggal gi wa màggal gi ren